ceeb. mais Big Naar loo ñëwee nii. waaw na ñëw tekk ak moom. na tekk ak moom. waaw bi sifflé ma laax moom foo moom. foo ak moom. foo jëmee ak gi. bulo bulo bulo talu na léegi bulo bulo ak jaraaf ñu ngi léewtoo tente nañuy loxo e fëgg na ko fëggaat ko jaraaf fëggaat na ko daje nañu jàppante nañ nag jaraaf téye ca ngemb la bulo téye ca ngemb la ñaari loxo bulo yëpp ci ngembam la ne ñoo ngi ni teek jaraaf a ngi saftaluwaa saftaluwaat ñun saftalu na saftaluwaat de jàpp nañu waaye kenn actionné wul wàcc na tibb bulo jaraaf wàcc na tibb ko bulo bañ mu wàccaat tibb ko kal ko mu bañ ñu ñu ko na ñoo ngi ci suuf lu xew lu xew lu xew 4 appuie le compte. ay doom day lan mais baax si baax ko xoolal nga xool boo ma taanee borom baax nga yow boo ma taanee man la man la loolu amul mais xanaa loolu xoolal muy borom baax nga gaay borom baax nga far expérience lay bëree tey ambulance jeunesse toj na nen jeunesse contre l'expérience ñu ngi lewtoo ñoom ñaar Ousa Sow ambulance téente nañu loxo téente nañu ay cati baaraam damoo cati baaraam la wala tee xool ambulance fipp na bañ ambulance dox na wuti usa ambulance xeex na ci koom usa moytu usa yërndu na ko génn usa ambulance usa dóor na ko ku usa ambulance expérience lay bëre moom ndax bàyyi na xel ci combat mu du anta bi fi mujj Ousa xeex na ambulance bi tibb na ko ambulance tibb na ko tibb na ko tibb na tànk ba buddi na ko Ousa bañ Ousa wàcc ñoo nga ca suuf Ousa sukk na tànku càmmoñam Ousa sukk na tànku càmmoñam dër jàpp lan mooy lan mooy am la fetti na Ousa fetti na seeti na jàpp na dër arbitre bi bu yuugee rek mu baax dër na ñoom ñaar ambulance a ngi koy a tafe te ñaañu ko usa bañ na ambulance mel na ni dina ko wër ndomba ah <laughs> daf ko dëpp daf ko dëpp ma doon mboot ma téye épaule bi nooju ko. nooju loxo nga ko daane. nooju loxo laa ko daane waaw. ku la jàngal nooju loxo. waaw saa mu ngi nii kii moom a jàngal nooju. kii dañuy bëre bay bëgg a dee. barke Serigne Touba làmb ji amul ñu si waxul. billahi wallahi di gërëm ñëpp ñi ma jàppale. gars yi xoolal nañ ma may chance. père dañu dañoo bokk si làmb. eh koo bëgg mu may la chance. man ñëpp. ñëpp mënul ne. barki Serigne Saliou staff bi ku ma wax ma bëri moom. mais mënoo bëreeg amat seen tey wax ma ñan nga bëgg. damay ñaan yàlla fekk leen si kaw. mënoo bëreeg Balla Gaye tey. damay ñaan yàlla fekk leen si wax ma ñan nga bëgg. ñemeel boo tapetee nga bàyyi. tapetuma de. ñemeel. déedéet déedéet bu ma waxee dañ naan ay promotion la. amul benn promotion waxal. barki Serigne Touba non nan ma jël lekk. ma sama waxal. non maa ngi sama ginnaaw staff. billaay walaay di sant di sant sëñ Omar Diegane maa ngi koy may victoire bi. ñu ngi lewtoo. ñoo ngi léwtoo ñoom ñaar Jordan deme na wet Boy Naar topp ko Boy Naar gëdd na ko dox Jordan dellu ginnaaw ñoo ngi léwtoo ñoo ñoom ñaar Boy Naar fëgg na ko Boy Naar fëgg ko fëgg na ko fëgg na ko fëgg na ko na ci biir bi booy naar dellu na ginnaaw xool ko Jordan booy naar Jordan booy naar jàppante nañ ca kaw Jordan rocceeku na booy naar ngi taxaw di ko xaar yu gaat na yu gaat na Jordan dóor na booy gubu dal ku bu dal ah ku bu dal ku booy naar a ngi dellu ginnaaw mi ko dooraat na ko dooraat na ko dooraat na ko booy naar génn na mëdun booy xeex da ngay xool ku yiñ lay dóor ak yi ngay dóor fan lay dal yiñ la war a dóor nga war ko moytu xam kañ ngay dóor ak kañ nga war bañ a dóor ak kañ nga war a moytu arbitre bi sifflé waat na seen diggante génn na ci ñu ngi lewtoo Jordan Boynar Jordan Boynar ñaari tànk ñaari tànk yi ñu jiital mooy danger bi ku ci ndiwoon sa pied gauche sa du la mën a laal te mën nga ko dóor mu wadd parce que da ngay am crochet droit daja nañu gis nga daja nañu daja nañu daja nañu daje nañu daje nañu kuubee dal kuu bi dafa dal yaa indi décentralisation bu rëy ban mbégte nga am tey. waaw mbégte mbégte parce que tey ñëpp kontaan nañu gis nga tey li xew cees Thiès tey xet mësu xew kontaan nañu bu baax a baax a baax ñuy gërëm yi di sekk mi fi fekk mi xam ne mooy maire dëkk bi Abdoul Mbow mi nga xam ni ñëw na vraiment teewe bis bi di nuyu ak di ñaanal bu baax le président Macky Sall parce que su réussir ñu ñëpp réussir donc ñu ñaanal Sénégal gi. Gaston coup coup la. kan naar bare monsieur l'arbitre lu xew lu xew. décision médicale on ne pourra pas continuer. ne hmm. amu su ma sifflé sifflé bi moo leen nit moo leen tàqale moo leen yemale ñu dóolante ma ko ci F4 f bi toj ñu dóolante mu dóor ma ci loos arbitre ne ko amoo droit di ko dóor ci loos c'est avertissement ñu dóolante ma su ma ko dóor ci kanam rek mu dóoraat ma ci loos. sama loos bi gis nga ni mu enflé. dafa enflé man mais même sax bu docteur wax dafa enflé moom amul droit di ma dóor ci loos deux fois. man bon naa mën a bëre mais problème bi mooy li tax mooy dóor ci loos deux fois xanaa léegi règlement amatul kon bu ku irrégulier yooyu ku ku irrégulier yooyu yow lan nga ci gis. li ma ci gis mooy ba bu kon nañ bàyyi ku nekk dóor lu la man dóor na ma avertir na ko ci loos dóoraat na ma ci loos ba pare mais victoire non victoire kii ñuy victoire la kii dafa maa mën a daan góor jigéen ñi.